heure laay jàng wala midi laay jàng 7 heures na la fekk mooy boo jàngul yëkkati it nga mën a durus ndax nag ñaari ñoo ànd ndax sëñ Lamine fépp fu ñu teg kuréel xasida teg nañ ci wet gi ay diiwaan ay ay xasaayit yoo xam ne ñi war a jàng duñ ne dañu croiser les bras toog ba war suñu heure jot da ngeen di dem durusi mhm. bu ngeen noppee ba seen waxtu jot kii fay taxawu ak ñi ma àndal dañ ñëw ne leen yéen mën ngeen jege si mhm. su ko defee na daan jàng dañuy wàcc ñoom it dem ca durus ga ndax nag mhm. bis bi loolu la njàngum yëkkati la waaye njàngum la kon kuréel yi moom rendez-vous dañ lay wax ne 7 heures na leen fekk terewul nag képp koo xam ne am nga ngant ba 7 fekku la fi heure bi nga war a jàng heure bi ñu la communiqué mm-hmm. te ñoom ñëpp jot nañ leen ne leen telle heure ngeen di jàng heure boobu moom boo ko tardé dañ koy wàññi ci li nga xam ne moom war a jàng kon loolu ñu ngi koy soññee dina ñëwaat sax mm-hmm. foofu ci kanam mm-hmm. tuuti ci wàllu téere yi wàllu barab yi waajtaay wi fi ñu war a toog jege gi ak ak ak yu mel noonu ma ñëw ak sëñ Cheikh euh, Touré xam nga ne nag bi bi mu diglee njàng mi digle na ay bernde tàmbalee moom ci boppam mboolem kilifa yi nga xamante ni ñoom la ko digal muy sëñ Cheikh Bassirou mu sëñ Abdou Khader sëñ Hamsatu sëñ Youssou Diop daara Isbu Tarxiya sëñ Xaban kenn ku ci ne indi nga ay ay ay ay ay ay ay say barkeelu ngir tàbbee ko ci bis bi am bokki taalibe yoo xamante ni ñi ngi koy ngi koy ñi ngi koy indi ñii ci ndox mi xam naa sëñ Mutla dana ci ñëw ci kanam ci matuwaay yooyu sëñ Cheikh démb sëñ Moustapha toog na fii nga toog leeral ñu ni ñu séddalee wàllu liggéey bi yow nga féetewoo ci wenn wàññ muy waa daayira Taysiirul Xasiir nan ngeen doxalee seen liggéey ak itam nan ngeen fas yéene nag àgg incha allah ci waxtu yi nga xamante ni soññe nañ. Euh, yi nga xam ne moo jàll. ñu wax rek ci di turu daayira Taysiirul Xasiir waaye mën nañu for lëngale mboolem wàññi nga xam ne rek ñoo aju ci liggéey bi nga xam ne si mun Muntaxa wat na ko ni ko ñuy jiitu waxee rek biñ diggal li rotee. te kenn ku ne jàpp ne fa nga féete mën nga ci am ngërëmal Sëñ Tuubaa ndax da jàpp ne ci rub Sëñ Tuubaa ci bis bi lam la ca féete loolu rek ca nga mën a amee ngërëm li euh, waa sécurité fa nekk waa comité pilotage bi kenn mun na cee ñàkk loolu nag euh, ci organisation bi nga xam ne moom nga xam ne yoonu murit loolu ci la tënku loolu moo waral bi ndigal li jotee ñu ngi sant baax suñu jëwriñ ñoom Baye Thierno Cheikh Moustapha ak Baye Mouhamadou Diallo ñoom it ni ko ñëpp defee lañ ko defee woote am ndaje xam ne euh, gaal gi euh, teer na te dafa war a départ waratu dem moom dong war na am ñu yóbbaale yaatal gi nga xam ne suñu jëwriñ yi bokk ispitarax yi def nañ ko ci liggéeyu suñu tubaab bi te ñu ciy sant bu baax a baax sëñ Yuusu di ñaanal suñu jëwriñ ci tedd si ñaatu ñaanal ko suñu borom ay ngërëm leer ba yéen ñu amoon ngir liggéeyal suñu tubaab yal na leen suñu borom dimbali ba matali ko ñaan ko yéen ñaan yi mun taxaw baax a baax a baax ndax kenn ku ne xam na ne gën naa boole yoonu murit waaw jëf ji moom li ci li ci feeñ ci ay jàngat dafa bari lool lool lool lool waaye ci wàññ ci ñu doon waxee ñu ko ñi ko waaje noonu lañu ko waajale woot nañ ci ay jataay yu baree baree bari ci mujj démb rek la ñu defaat ci jëleen lu am solo mooy bu njëkk naan woo jëwri yi waañ yi buñ daan ñëw ay góor rek la ñu doon waaye démb fex nañ ba boole ci soxna yi ndax li ci ëpp ci wàllum togg ñoom ñoo koy saytu bi ñu demee ba daara yi seen yaatal gi ma ci ni ma ko waxee dañuy ni mbooloo mi ni muy demee ndax bu ñu ko xoolee ci daaw rek wax cent vingt 1424 mbana euh, taaloon nañ ko te dafa mel ni daanaka toqali ci géej euh, ni mbooloo mi wuy woon mel na ni euh, daanaka doyu leen daal loolu moo moo moo waral bi ñu woote waatee ñu xool jàngat kenn def loolu njëkk a def mooy la amoon daaw ñu ñëpp gis nañ ko bokk na ci li gënoon indi ay jafe-jafe mooy wàllum séddale ni ba tax na ren bokk na ci waajtaay yi nga xam ne def nañ ko defuñu ko woon daaw ni ñu ni ñu ni ñu so euh, ni ñu euh, indi ay waañ noonu la ñuy falewaat yeneen mbooloo yoo xam ne séddale rek mooy suñ doon suñu yitte yeneen mbooloo yoo xam ne it lay doon suñu yitte mooy jële fii mbana yóbbu ko euh, fële ak beneen waajtaay boo xam ne defaat nañ ko ci biir mooy biir biir jumaa ji nga xam ne day barab boo xam ne wa man yu'azzim hurumaatillahi wa huwa xayrun lahu euh, waruma jin ko war a jox te yow moo xaddamatul xidma ñu ngi leen ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom gën leen tàbbal gën leen dimbale euh, ñu ñu xamal ni biir jumaa ji bokk na ci waruma yi bu ñu sañoon duñ fa dugal lu mel ni ay ndab kon nag war nañoo waajal loo xam ne ndax nit fu muy toog diggante waxtu bu mu fay toog bu fay jógee du ñàkk muy yittewoo loo xam ne dina ko mën a dëgërloo ni ko suñ bi waxee taxawiyan li koy tuti rabba Euh, muy koy dëgërloo ngir jaamu gi muy jaamu suñu borom ndax suñ suñ suñ Muntaxa li mu woote jaamu yàlla rek ak jaamu ni mu ko waxee jaamu yàlla liggéeyal ko suñ Tuubaa liggéeyal suñ Tuubaa jaamoo ko yàlla kon nag gis mhm. euh, wàññi mhm. ren ni nga ko waxee am na ay soppiku yoo xam ne am na ci mhm. kon mel na ni euh, gënoon nañ ci miin ceeb am na ay innovation yuñ ci indi ngir bëgg bu gën a yaatu tey jii maanaam so yan matuwaay ngay soññe ndax waxtu wi day mel nii ko dem ci waañi dana leen fekk ñu nekk ci waajtaay bu am solo waaw ñu ngi leen di soññee ak itam ni ñu bëggee waxtu yi teel ndax sëñ Moustapha nee na bëgg nañu fukki waxtu eh, ndab bi gën a naaj ñu fekk loolu nag mel na ni am na ay ay ay matuwaay ci wér wér wér eh, mën naa joxe misaal rek ci wàllu ñuy tudd léegi tey girongir daanaka boo fay boo fay jógee mbooleem luy jàppandal wàllum xéwal yi moom tege na ba noppi eh, ndax bu njëkk li ci ëpp ci li daan toggee moo doon mat te xam ngeen matt ci nawet mel na jafe-jafe mën na ci am léegi fourne yi lañuy jël di ci def wàllum këriñ teg na fekk bàyyi naa ne ñu teg fourne këriñ gaak yëpp ndax ñiy jaay këriñ am nañu ay magasin yoo xam ne bu nawet jotee dañ ko fay faggu loolu ci lañ fexe ba am ci këriñ lu wow loo xam ne da mboolem li ñu war a toggi dañ ko installé nga xam ne wax na ne fu quatre heures de matin jotee fépp fu nekk te bëgg a barkeel ci liggéey bi di nga ñëw fas yéene àggale la nga def fekk na ñu waajal mbooleem yooyu war a dem ci cin ya ni nga ko waxee daana mel ab ceeb daana ci bari waaye ren jii moom ñamu Tuuba lañ gën a bëgg mu mu ëpp ci li ñuy joxe ci ci ci bis bi bokk nañ li gën a soññee mooy li ñuy ak silvisé ndax dafa dem ba ñi xamul dañoo jàpp ne kii togg moo war a gën a salte suñ ko soññee wax ñu ngi jéglu baat bi moo waral soññee bu baax baax ci démb rek kii togg lu mu gën a mën a xay ci sol lu set bu fekkee ne ku yàlla na la euh, bëgguñu ko ci sax kuy léttu lu mel ni ay mees bala nga faa ñëw boo xam ne la doo mën a takk ci sa bopp ba du siit ba du def yan yi na ko war nga liggéey warmaale liggéeyu suñu tubaab bi nga xam ne euh, suñu borom day ko sell te lépp lu sellul day mel ne jubluwu ko bokk na li ñu gën a daal mooy wàllum sell gi ak teele gi noonu nga ko waxee te loolu mu dara mun ñu ko mooy mooy waajtaay yi nga xam ne def nañ ndax daara ji def nañ ci liggéey bu solo mooy bi nu xëyee mbooleem la nga xam ne moo jëm ci waañu lañ ca man seen kémtu lay kattan yëkkati nañ ko teg ko ci loxoy waa ji ba fi may wax yooyu rek ci waajtaay yooyu man wax ne léegi ne ci wàllum chandis euh, yooyu ay mbuus yoo xam ne dañ koo waajalaat te buñ bàyyi woon waaj bu neñ mu dem rek loolu lépp mën ko waajalaat waaye yàlla dimbaliwaat leen waajalaat na yeneen mbuus yoo xam ne bëgg nañ suñ ko defaree yooyu ba noppi def ci euh, def ko ci euh, def ci chandis yi mu ànd rek mboole lu mën àndal ba képp ku ko jox ci biir jumaa yi da nga ci mën a xewlu na nga ci bëgg a xewlu te du la yàqal dara ci sa liggéey. kon daal kon daal mm-hmm. moom day ni pas-pas la loolu ndax gis nañu maanaam yitte yi. Mm-hmm. Eh, te itam togg yi dana dana yaatu lool mm-hmm. loolu sax suñu motulaa. dina ma may ma ñëw ci eh, waa daayira Muxaddamatul Xidma dégg nañu démb eh, Baye Fall yi ni ñu ko soññee mu mel ni kon séddale bi am na maanaam nu ñu ko jubloo ak sax ñi nga xam ne tey ajuwuñ ci waañ yooyu waaye dañuy am yéene togg ay xéewal ci seeni kër ànd ak seen njaboot bëgg koo indi ñooñu itam mel na ni waajal nañ leen fu ñu leen mën a dalalee bu séddale bi mën a mën a doon lu am solo. maa ngi sant bu baax baax ñi nga xam ne jot nañ ci kàddu yi euh, loolu waajal nañ ko ndax xam nga ñun ay doomu aadama yu liggéey rek lañ kon sañ na xayma di natt waaye am nañu wuur cëng cëng cëng cëng ne la nga xam ne mooy am ca terrain bi day kawe njort ndax day mbirum sëñ Tuubaa ñun li nga xam lañ mën a xayma waaye la nga xamante ne ñu dikk di tawféexu Sëñ Tuubaa mën ñu koo xayma waaye nag nañ waajal li nga xam ne su ñëwee dañ ko mën a dékku ba mën koo jëriñoo moo tax lu wër ci jumaa ji eh, ñu yore waañ wi dagg barab yoo xam ne mooy barabu seddalekaay barabu seddalekaay yoo xam ne su dee ay mbana lañ fay indi wala booli lañ fay indi lépp su fa nekkee dana fekk ñi nga xam ne ñooy seddale ñoom ñu nekk fa jekk ak seen bool ak seen i bool raxasoo ak lay aju lépp ngir su ñëwee ñu mën a dem waañ yi nga xamante ne mel ne waañu bi nga xamante seen Cheikh Touré wax na ko ak yeneen i waañ kenn ku nekk yaa ngi togg waaye dañuy wax ne yow soo toggee ba noppi barab sàngam la jëm ñii ñun leen kër seen Tuubaa gi la jëm ñu waajal fa ñu séddale lu mel noonu ñii leen kër seen Abdoulaye Mbacke la jëm ñii ñu leen kër seen Abdoulaye la jëm ñii leen kër seen Fall noonu lañ ko def ba loolu lépp yaatu fenn fu nekk tamit fu ñu dem fekk nañ fa ñoo xam ne dañ ko mën a euh, séddale waaye jëmm biir jumaa ji nag nga xam ne fa lañ jàngee alxuraan euh, foofu euh, dañu bëggoon ñu gën a ndax mën a tegi bool ci biir foofu moket yi day tilim te day barab bu ñuy jullee moo tax bi nga xam ne waa waa xalaat nañ seen xel màcc ñu ne ndax du ñuy defar ay mbir xam ne dañ ciy def ay xeetu sandwich yoo xam ne daanaka sax mën nga yor sa jukki di durus yenn saa yi nga domp te diw gi sax du la sonal kon ay xeetal xeetu muusal ay xeetu saafu tuuba yoo xam ne daanaka mën nga koo boole di durus li ngay def te yore sa musuwaar te du la yàqal dara bañ xalaatee loolu xel yëpp jooy dem ci loolu loolu moo tax wàññi bari fi mu toll nii ñu ngi góorgóorlu ci def loolu soo seetee dem li seen Cheikh Touré wax li tax soxna ñu woo leen bëgg gën a waxtaan ak ñoom ci loolu xam ne liggéey bi mu gën a moo gën noo ko mën defee ba nga xam ne li ngay def su dee sandwich la yax sax du ko am dana yomb jëriñoo te kii jëriñoo du fi jóge mbuus moomu tamit lu si mën a ànd ci ndox wala ci pomme wala banaana loolu àndaale ci loolu day tax ñi nekk ci biir barab boobu nga xam ne mënuñu fa tegi bool kenn du soxla woo jóg nga def leneen kon loolu muy yitte ju kawe joo xam ne fi mu toll nag lii am solo li tax Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké duñ ko sant mukk lu doy xol yooyu mu boole ba kenn ku nekk loo xam ak loo man ci xalaat bu rafet ak ci liy baaxal yaa ngi ko indi ñu ànd di dem loolu dafa amul njëg dafa amul njëg nga xam mbooloo yi lii wuti wuti wuti waaye soo leen gisee ñu ànd liggéey doo xam ne kii fee la bokk wala kii fee la bokk la nga xam ne mooy tal bi yaakaar sëñ Tuubaa daal moo nekk ne te loolu dafa am solo lool am na solo foofu loolu si mut laa mu bëgg nga ñëwaat ci dinaa ñëwaat sëñ Xaadim léegi sax ci wàllu circulation bi ndax loolu nga wax tey day gis ñoo xamante ni oto day yor day day day def ay ndab wala am ñoo xamante ni dañuy yam wala wala wala wala ñoo xamante ni warees na leen a xajal ñu yor glace xeet yooyu yëpp kon day mel ni bokk na ci yi nga xam ne ni ko suñ xaadim waxee woon kenn ku ne na jàpp ne man daal ndax su ñëpp defoon ni man nu bis bi mel loolu am na solo ma bëgg na nga ñëw ci ñi nga xam ne tey dañuy am euh, seen xéwal lu ñu togg waaye dañuy xiir xiir goo xam ne jàpp nañ ne bu ñu ko tegul ci ëtt jumaa ji rek yeggul fa ñu ko war a dëgg wala bu ñu ko tegul ci mbaar sàngam yeggul fa ñu ko war a fa ñu ko war a ñu xam ne ña ñuy bàyyi ci bunt yi ñu di leen gàttandu ngir jàppandal leen liggéey bi la ñu ñu ñu bañ a weranteeg ñoom te te te yombalal loolu occasion lay tax ba ma dugg sax ci wàllu ñi nga xamante ñoo yore barab di ko saytu ñu bàyyi xel ne ñuy takk der yi wala mu ñuy bokk Safinatoul Amaan wala Xudaamu Xadim ñoom ñëpp seen yitte lenn rek la mooy yëwénal mbir mi koo xam ne dafa ñëw na ngir jàppale ngir yëwénal doo xuloog moom doo werante ak moom soo ñëwee dañ koy laaj nan laa war a def soo ko laaj nan laa war a def rek su la ko waxee da nga yëg ne yéen ñëpp lu ngeen bëgg da ngeen ko am kon loolu fàggu nañ ko tamit mboolem koo xam ne dangay am sa yitte bopp rek ba togg indi bu soobee yàlla dana joxe numéro sax boo xam ne euh, ku woote ci numéro bi kooku dañ la mën a indiquer ne ko yóbbu ko barab sàngam soo demee da ko fekk diw loolu muy benn waaye tamit xamal ne yéene ji ak pas-pas ba nga ko amee ba togg ko ba indi ko ci barab bi rek centre de distribution boo fekk mu war jumaa ji ñuy séddale soo neexee jëbbale ko te xam ne Sëñ Tuubaa gis na li ngay def kon daal maanaam li wër jumaa ji mhm. day mel ni kon xibla gu nit jóge di nga am waañ a mhm. a teg la nga togg ñoom ñu seet ñu koy seet kër sëñ Tuubaa gi am na waañ yu mel noonu mhm. kër sëñ Abdoulaat kër sëñ Fallu kër sëñ euh, Abdoulaye li wër jumaa ji sëñ Tuubaa jumaa ji yëpp mooy bu kër sëñ daam atte fenn fu nekk am na waañ foofu yóbbu rek da fekk ñoo xam ne dañ la teeru dañ la dalal da mën a séddale numéro bi ma joxe nag mooy 44 22 77 612 44 22 numéro sëñ Moustapha Diop la tudd sëñ Moustapha Diop moom yitte ji saa yoo ko wooyee caa am loo bëgg a togg foo ko bëgg a yóbbu wala nangam moom dana mën a wax ne mën nañu ko dem barab sàngam mën naa dem barab sàngam waaye soo ko jotul sax waañ yooyu yëpp mën nga faa jaar yóbbu ko dëgg la yaakaar naa lu ubbi na bunt bu am solo ndax Cheikh Mamadou Mountakha moo tàmbali moom benn mm-hmm. euh, dégg nañu mboolem ni ñu ko waxee woon sànq kilifa yi nga xam ne ñoom la sant liggéey bi seen taxawaay démb njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bi ñu ci teewee dégg nañu soññe bi ci sëñ am ni def ba ñoom sax waajal nañu fi nga xamante ni mooy kër Serigne Bassirou Baara jàkkaarloog barabu maam Cheikh Issa Diène ci Ndiène ñoom fa la ñuy dajale lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu bernde zikrullah ak ak lu ni mel. mooy may nag sëñ Xaadim ma ñëw ci wàllu circulation bi ndax daaw am na lu ñu dund ci jumaa ji ak li ko wër ñu gis ci soxna yi sax ñoo xam ne. seenu xër yegg na ci dañuy ñëw boot seeni doom indaale ñii indaale xale yoo xam ne mënuñoo dox bu lëf ne woon tell mënu mënu mënuñoo daw lijjanti leen du mën a yomb loolu itam yaakaar naa ni bokk na yéen ci seen soññ yi ma dégg ngeen def ko nit ñi wax dëgg yàlla ñu mën a uh, wattandiku lu mel noonu te xam ne eh, am na ñoo xam ne moom eh, bu ñu toogoon seen kër itam eh, seen seen seen ngànt mat na li am solo mooy ñu sellal ndigal li sëñ bi digle su ko kenn du leen ci waaw jërëjëf sëñ Mouhamadou Lamine euh, li nga wax am na am na solo lool wax seetee euh, euh, yi yi passé dinaa gis ay yenn situation yoo xam ne dañ gis benn soxna ñëw boot doomam ba noppi jaar foo xam ne dafa bëri mbooloo moom xëy na mën na cee génn waaye xale bii nga xam ne moom la boot ci ginnaaw tamit war na ko sóoraale ate koo xam ne mënul wax euh, mënul mënul yuuxu mënul boppam dara saa yoo ko jëlee dugalee situation boo xam ne moom mënul daral boppam rek daanaka lor nga ko te léeg-léeg nga gis fa nga jëlee si ay ay ay problème yoo xam ne xëy na euh, boo toogoon sa kër xëy na ci fekk ba tax na ñun li ñuy soññee mooy képp koo xam ne yore nga doom wala yore xale boo xam ne jàpp nga ne moom mënul boppam dara li nga xam ne moo doon gën mooy nga toog parce que sëñ bi nee na euh, comme ni ma ko waxee ku nekk mën nga ko defee bërëb ba nga nekk. te am na noo xam ne boo ko defee ci bërëb boobu tuyaaba bi nga xam ne moom ngay séntu ci wetu jumaa gi di nga ko fa am. te beneen bi tamit mooy euh, am na bërëb yu bëri yoo xam ne ubbi nañ ko. penc yu bëri ñu ngi fi yoo xam ne mën nga bañ a egg si jumaa ji waaye dañuy gis ñu bëree bëri jàpp nañu fii ak egg si wuñu si jumaa ji rek xëy na li ñu bëgg duñ ko am. donc loolu bëgg taxaw fa lool ndax day mel ni sëñ bi. Hmm. Hmm. maanaam gi la ci jublu waaw ah. nga xam ne jublu ci nit ñi ñëw mm-hmm. wër jumaa ji mm-hmm. ñi fotowu ñi mm-hmm. waxtaan ñi dem ñëw nga xam ne mën nga faa ne suba ba tàkkusaan doo fa jàng benn bayit doo fa jël benn jukki doo fa maye ndox amul lenn loo xam yow boo ko seetee lu dul dem ak ñëw ak xatal tali bi euh, baare yoonu baare circulation bi day mel ni sëñ bi moom bëggee ko noonu yaakaar naa sellal gi ngay wax lu ci am solo la lool. waaw loolu euh, dañ ci insister bu baax a baax baax ndax dañ koy gis lu bëree bëri bari képp koo xam ne jàpp nga ni bés bi moo la tax a jóg moo xam wàllu boo xam ne foofu nga si féetee war nga ko mën a defee fa nga xam ne foofu nga nekk ndaxte boo seetee penc yu bëri li ngeen li ñu fi wax yëpp am na foofu. surtout boo gisee jumaa gi léeg-léeg buntu bi di xat boo seetee ñu bëree bëri dañuy taxaw ci buntu bi rek taxaw di seetaan. te jàpp nañ ne ku nekk war nga am loo xam ne war nga mën def du ma fàtte mukk am na benn euh, koo xam ne du ma ko mës a fàtte mm-hmm. dafa doon yore benn mbuusu mbuusu saaku ceeb xam naa dafa dem ci ci waañ bi jël fa benn saaku ceeb boo xam dafa jeex. Mm-hmm. mu lem ko di wër si jumaa gi naan euh, addiya mbalit. <laughs> te loolu mu nekk lu lu lu lu lu ma marqué. Mm-hmm. day ñëw fekk fekk ngay naan ndox mu taxaw xaar la. lii kenn neet maa ko gis mu taxaw xaar la ba nga am naan sa ndox sachet ba pare mu ne sarax ma euh, mbalit mi. Hmm. nga joxo ko mu dugg ci mbalit bi ba jàpp ne ku nekk ci ci ci ci ci ci bis bi mhm. soo ñëwee rek am nga loo xam mën nga ko def bu mhm. fekkee mënoo mënoo jàng munoo mhm. sikar mënoo Euh, durus moo xam xasida wala wala wala wala wala jàng alxuraan mhm. war nga sax mun a jël sa benn euh, mbuus bu ndaw mhm. boo xam ne fépp koo xam ne gis nga ko muy muy muy muy naan mhm. wala muy jëfandikoo nga jël loolu nga xam ne moom la jël nga jël ko kii ko donc fi mu jàpp naa képp ku ñëw ci bis bi rek am am am nga loo def beneen bi ndox ñii di ñii di waaye bi ci yokkaat moom laa si gis mooy euh, fexe ba cet gi mu am ñoo xam ne kenn du leen ko sant mais ñoom ñoo koy féetewoo te loolu rek liggéey bu am solo la beneen tamit mooy nga jàpp ma ci mooy Baye Fall yi ñu ñëwee soññe bi ñu soññe mooy bëgg nañu barab bi leen sëñ bi féetale bu ñu fa noppee gën a set bañ leen fa yëndi kon ñooñu moom day mel ni <laughs> wax ji nga wax xaw ma sax ñoo wax ni loolu mhm. jàpp naa ne képp ku ñëw mhm. jàpp nga ne mbalit bi nga xam ne moom nga fa moom nga moom moo fa am ndax mhm. yow war nga fexe ba mu jóge fa boo ko gisee tamit keneen koo def tamit nga nga nga nga jóge fa nga jëlee ko fa beneen bi tamit mooy euh, bëgg naa si euh, insister mooy da ngay gis ne euh, ñu ñu ñu bëri bëri bëri dañuy dañuy taxaw ci ci bunt yi loolu tamit lu am solo ndaxte bunt yi léeg-léeg ci bi sax mën na bañ a fees waaye nit ñi duñu am fu ñu jaar pour ngir dugg damay gis ne ñiy sëddale dañuy am jafe-jafe yow lu bari bëri dañuy yore li ñuy lu ñuy sëddale war ko dugal fenn moo xam fu mu mënti nekk waaye duñu am fu ñu jaar léegi dañuy ñëw sécurité bi ne dama bëgg dugg waaye même sécurité bu la bëggee dimbale amul amul fu mu la jaar parce que mënoo jaar ci kaw nit ñi <laughs> loolu tamit lu lu lu lu jar a baax bu nit ñi daal bu ñu mënee fexe daal ba lépp loo xam ne war nañ ko def rek mu bañ a weesu jàng durus moo xam donc alxuraan jàng xasida ba noppi bu fekkee am nga loo def tamit nga nga jëmm fexe ba jumaa gi set rek loolu léegi liggéey la te ku nekk am na ci wàll dégg suñu xarit bëgg nga ñëw tuuti balaa muy ñëwaat ak euh, suñ Cheikh Touré ak suñ Papa Sane ci wàllu ñi nga xamante ne dañuy ànd ak kilifa léeg gis ñoo xamante ni kilifa day ñëw bokkuñu sax ci délégation ñu bëgg ci ànd. ak ñoo xamante ni bu ñu àndee kilifa bu ñu ñëwee xam nañ ne fépp fees na waaye wormaal nañ ko yaatal ko ba na dara jaam toll moo waral ñu war ko yóbbu foofu ñi mu àndal ñëpp bëgg fa àgg. ñu gis tamit wàllu oto yi di gis koo xamante ni tey day gaare foo xam ne yóbbu caabeem téléphone du dox mu baare circulation boo xam ne kenn du ko mën a lijjanti ak ñoo xam ne jàpp nañ ne faw ñu indi seen oto. ba ci biir jumaa ji yaakaar naa ne koo xam ne durusa a tax a ñëw soo gaare woon 28 sax wala nga gaare Daaru Xudus dox ak sa tànk ñëw moo ëpp nooflaay ci yow moo ëpp nooflaay ci kii yooyu yëpp yaakaar naa ne bokk na ci nga xam ne dégg naa ngeen ngeen ngeen di ko soññee ngir ñu bàyyi ko xel. waaw euh, si bi nga mujjee laay laay laay tàmbale mooy ñi nga xam ne dañu yor dañu yor ay oto mhm. euh, léeg-léeg nga nga ñëw yow kese indi sa oto. Mhm. am na noo xam ne xëy na boo ko defee wala nga lépp déggoo ak sécurité bi la rek. parce mhm. boo ñëwee da ngay taxaw si si si si bunt fi barrière yi nekk. sécurité bi ñoom xam nañ oto yi nga xam ne war nañ mën a jàll. ak oto yi nga xam ne ñu mën a jàll. am na plan de circulation boo xam ne ñoom soo ñëwee dinañ la ko leeral. léeg-léeg gis tamit nit ñëw euh, nekk juróomi oto. Mhm. juróomi oto yëpp da daal di bëgg a dugg te ñëpp xam nañ ne yooyu xaju fi. mais ginnaaw leen yokk yokkal benn information boo xam ñu bëri xamuñu ko. Mhm. est-ce que xam nga ne que euh, mbooloo yu mel nii boo dugalee sa oto sax risque la pour sa oto yow parce que gis naa fi daaw ñoo xam dañuy dugg si ak sa oto moom ñu toj ko. toj mmh. paralysé donc dugal sa oto sax xëy na jàpp nga ni bu fekkee da ngay dugg rek. Mmh. ngir ñu wàccee la nga dem. loolu lu ñu lijjanti la waaye boo jàpp ne oto dafa war a taxaw gis naa ay oto yoo xam dañ ko toj daaw mmh. donc ku nekk war nga bàyyi xel ne soo amee oto. li gën mooy bu fekkee da nga dugg. fexeel ba boo paree ki dawalal. Mhm. dem taxaw xaar la foo xam ne boo noppee. Mhm. da koy woo. Mhm. nga daje ak moom ndaxte bu bu bu fekkee dafa na dugg si. nga def ñaari waxtu. boo ko naree fekki di nga def waxtu te am na foo xam ne boo fa taxawee. juróom minute nga nga nga fekk foofu loolu tamit lu lu am solo la beneen bi tamit mooy plan de circulation bi tudd nga ko léegi nii ñi nga xam ne xëy na dañuy jóge Mbàkke boo seetee euh, zikrullah bi si eh, eh, penku jumaa ji lay lay lay nekkee. bu fekkee ñi jóge Mbàkke mën nañ jaaree eh, corniche bi. corniche beleel bi. pour noppi duggee yoon bi ki jëm baax ya. Mhm. ñëw si sëñ kër sëñ Abdou Khadre. foofu mooy gën a yomb si ñoom. si ko bëggee jaaree 28. dina dina xat ndax am na foo xam ne foofu la mën a yem mm-hmm. te beneen bi gis nga euh, wàññi ñuy wax yëpp yu si mm-hmm. bëri foofu la nekkee mm-hmm. te tamit dafa am yeneen yu am am na ñoo xam ne day ñëw yore yore yore yore ku ñu war a toppatoo ku ñu war a defar ah, yooyu yëpp dafa dafay am te ñooñu tamit du lépp loo xam ne ay ah, activité yoo xam ne jumaa gi daf ko daan bis bu nekk yooyu de am ñu daan ñëw di jàng si alxuraan si euh, waxtu wu jot ah. ñooñu tamit dañuy ñëw waaye li ñu ñaan mooy képp koo xam ne ñëw nga nga am jafe dugg si biir bul bul bul bul bul mer euh, bul fexeel lekk ba ka nga xam ne moo ne buntu bi boo ko présenté woon ne ko ah man de si ñuy jàng alxuraan laa bokk exemple laa joxe rek mm-hmm. dinañ fexe ba nga dugg bu fekkee tamit kilifa nga fekkee ne léeg nga ñëw euh, euh, fekk kii yore sécurité bi si xat-xat boo xam ne mm-hmm. mën na la bañ a ràññee du ñàkk xam mee wala du ñàkk yitte wala mm-hmm. ñàkk teggin waaye mën la bañ ràññee mën nga rek daal di koy ne ah man de man maa diw wala ka nga xam ne moom nga àndal ne la ah, kii de mooy diw mhm. bu jàpp naa ne communication bu amee lu bëri na yomb léegi nag di mujjee si euh, laaj bi nga bi nga bi nga njëkk laaj mhm. muy ñi nga xam ne dañuy ñëw nekk mbooloo da leen gis benn kilifa kese ñëw mhm. ànd ak téeméeri nit léegi bu fekkee lo loolu am na ñun fexe nañ ba ñi nga xam ne euh, jàpp nañ ne Euh, dañuy nar a ñëw ak ak ak mbooloo. Mhm. waxtaan nañ ak ñi nga xam ñoom lañ yobaloon ci comité pilotage bi. Mhm. wax leen bu ñu señoon de. Mhm. bu ñu xasee ba ba yegg sécurité rek. nañu bàyyi sécurité bi mu mu mu mu egg egg egg egg eggale su ko defee mbooloo bi nga xam ne moom la ñu àndal. am nañ ay bâche yoo xam ne am na si ndeyjoor bi. am na si càmmoñ am na si. kanam ak si ginnaaw. Mhm. mbooloo bi dem foofu moom xëy mën a dugg ak ki nga xam ne xëy na mooy mooy yore moo xam téléphone am wala dàllam wala ay bagage bi ñu daal di mhm. ànd su ko defee ñeneen ñi daal mhm. di xaar. Ah, loolu daal ko defee. dinañ yomb liggéey bi lool lool lool lool lool lool te ñu ngi siy ñaax ñëpp. dëgg la muy lu muy lu am solo waaw. dafa am solo lu wóol sax. mooy su ma àndee ak dal rek ndax ba ci bunt yi bi ñu def waxtaan yi doon tànn ñoo xam ne ci sécurité bi. ñu xam mbooloo mi lañ ñu xam kilifa yi lañ nga xam ne bunt boo xam ne takk dara ma nga fa waaye fexe nañ tamit ñun suñu wàllu protocole ak accueil ñoo xam ne ña nga fa ànd ak ñoom moo tax kon soo ñëwee te ànd ak dal rek bul jaay sañ-sañ bu jaay dara wax li nga bëgg rek nit ñi ci wet ga koo xam ne danay mën a yéwénal loolu ba la nga bëgg nga mën koo am loolu daal bëgg nañ ci biir jumaa ji lépp loolu waajal nañ ko ba ci lu wér jumaa oto dañ jaay suñ sañoon oto du fa jaar ndax looy tax mu mën a fluide camion yi nga xam ne dañuy sëfi bagage ay mbana war koo indi su ñëwee mën a jaar daaw dañuy gis camion boo xam ne diggante buntu kër Sëñ Abdou Khadir ak kër Sëñ Saliou rek dañ fa def deux de temps te sëf mbana yoo xam ne dañ ko war a séddale. kon daal ñun daal ni ñu ko waxee daal sëñ bi ànd ah, rafet na lool jaar na yoon ak dal te xam ne defar moo ñu tax a jóg rek bu soobee lépp dana jaar yoon. waaw jërëjëf ñuy sant bu baax suñu xaadim di sant bu baax suñu Mourtala ndax loolu gis nañ ne nose nañ ko bu baax ci comité de pilotage bi kon ñu xam ne ren ak yokkute am na ci ndax kuréel yi suñu xaadim wax yëpp muy waa muxaddimatu xidma di Baye Fall yi di asadul xadim di xuddaamul xadim istixaama safinatu aman ñoom ñëpp ànd nañu euh, nosandoo benn benn benn wenn yoon ànd ci nag ak autorités yi ndax réunion yi ñu doon def tey ak plan de circulation bi ñoo police ak gendarmerie ñoo ànd tënk ko kon di wane ni kon réeré wuñu kon ñi nga xamante ne maanaam ñooy ñëw itam ñu sàmmal loolu sëñ Assane euh, ñu ñëw ci yow sànq yaa ngi woon ci waxtu démarage bi waaye ragal naa ni ñi nga xam ne ñoom 7 lañu la war a jàng bàyyi ba 7 heures des ay minutes ñu ñëw dina ci am ñoo xam ne soo moytuwul fu ñu jaar ba àgg fu ñu jëm dana leen jafe lool. <laughs> waaw ndax ndax ndax Baye Fall yi ñoom. Euh, nee nañ nee ñi dëkk ñi ñi dëkkul ci dëkk bi te newuñu fi ñoom nañu fanaan si tey ndigal loolu suñu am di joxe. ñi nga xam ne Touba lañ dëkk ñoom 5 heures du matin. lañ leen appal. Mm-hmm. suñu am moom pas-pasam mooy. jullee jullee jullee fajar ci jumaa ji hmm. kon day mel nii bis bi ah yaakaar naa ne nag jàngkatu xaside yi eh, ku ci yéex jàpp ne da ngaa war a ñëw waxtu soo deful ndànk ak ak tardement dina ci mën yaakaar naa loolu moom mooy mooy mooy mooy pas-pasu ñëpp. Hmm. mooy kenn ku nekk ña fa mën a fanaan fanaan fa. Hmm. ña nga xam ne fa lañ eh, mënuñu faa fanaan te mën faa jullee ji eh, suba. ñu def ko. dafa am yokk ci li sëñ Xaadim doon wax. ci loo ah. xam ne yaakaar naa ne danañu dimbali. Ah. mooy ci délégation yi ba tey. dangay gis dañuy accueillir ab kuréel. Mm-hmm. nga gis ne kuréel bi doo bu dee par exemple ñaar fukki nit. Mm-hmm. dañuy gis lu tolloog fukki nit ak juróom yu si topp ci ginnaaw. Mm-hmm. ginnaaw ñun xamuñ ñëpp dañuy gis ku la naan ci kuréel bi laa bokk. te day fekk day am barab boo xam ne ñun fa la ñuy beral kuréel yiy xaar. gis nga ko ñooñu bu ñu àndee kuréel bi. ba desul dara bu dul kuréel gi jóg di jàngi. ci ngay gis ñu am ñu fa des ñoo xam ne ci kuréel nga doog nga xam ne ñii bokkuñ ci kuréel bi. ñooñu bu kuréel bi jàngee sëñ Lamine ba noppi mhm. xam nga dafa am feneen fu ñuy dem pour mhm. beneen kuréel ñëw ñooñu ah. ba tey duñ jóg su ko defee nag beneen kuréel bu ñëwaatee amaat loolu day mujj barab boobu nga doon dalal kuréel pour ñu mhm. jàng day mujj xat waaw nga xam ne day am ñu koy jàppee place waaw ngir bëgg mën a teel a ñëw nga xam ne loolu tam day day day indi gàllankoor loolu itam yaakaar naa ne eh, faw faw nit ñi jàpp ci xam ne ñun defar lañ ci jublu <laughs> ndax bu kenn ku ne ñëwee toog jàngoo toog keneen ñëw jàngul toog mhm. keneen ñëw jàngul toog dana mujj bu ab kuréel ñëwee mhm. dootuñu xam fuñ ko dugal jafe-jafe yooyu seet looñ ko daaw nga xam ne day mujj barab bi day xat lool ba kuréel yi daanaka duñ xam duñ xam léegi ni ñuy toogee mhm. kon yaakaar naa loolu day fekk si li suñu xaalim doon wax mooy du euh, barab du mbirum damay ñëw jàpp place ngir dégg ña fa barab boo gis rek ñu ne la diw diw a fay nekk mhm. day diw boo xam ne dañ koy soxla ci liggéey bi te warul xaar eh, da nga daan gis jafe-jafe bu mel noonu ci bunt bi mhm. mooy suñ kuréel bu war a jàng si ñëw ba ci bunt bi mhm. mënul dugg mu des cinq minutes nga woo jëwriñ ji mu ne la maa ngi ci bunt bi waaye maa dugg fu ma jaar ndax aw ma fa ma jaar te boobu ay nit a dajaloo ci bunt bi sécurité bi mënul ci dara nga gis ne kuréel boobu toll nañ ba gis kuréel boo xam ne dañoo remplacer loolu itam gis ñu farlu ñoo xam ne seen ginnaaw la ñu waroon bokk te a ñëw waaw dañuy mujj kooku nga koy remplacer <laughs> da ngay jékki-jékki kooku agsi fekk la ci programme boo xam ne mm-hmm. jafe-jafe yooyu yëpp nag yaakaar naa ne euh, kuréel yi itam war na tax ñu ñu ñu gën yokk farlu moom yaakaar naa daal heure démarrage bi daal moom bu ñu ko bëggee sàmmonteeg moom mm-hmm. waxtu tàmbali bi mm-hmm. day mel ni moom ku dinga di mën a teel ndax dëkk bi mooy xat fu ñëpp jëmandoo rawatina jumaa ji ah bu fekkoon maanaam boo mësaan a euh, jóg 6 heures àgg fa 7 heures da ngay xam ne bii yoon war ngaa gën a mën a gën a gën a mën a teel a jóg dëgg la sëñ Lamine loolu di lu am solo hmm. leneen li nga xam ne peut-être moom laa bëgg a fàttali mooy euh, bis bi moom ni ko ñëpp waxee dafay dafay taw féexe ndax wa chamlajmaha bi sëriñ bi ñaan boromam hmm. da cee feeñ te ñun ñiy jàng xasida yi ak di ci yëngu dañ ko hmm. seetlu mooy gis nañ ne diggante kuréel diggante jànkatu aw diggante jànkatu rajas jaxasoo nañ ba euh, xamante moom laa wax sëñ Mamour Kayre démb mi nga xam ne moom la sëñ Xaadim Gaye yebaloon ci ñun ngir ñu war a liggéey moom mhm. ma ne ko lii rek jaroon nañu organiser bi waaw a yëngu ci xasida yi <laughs> te dañu jàpp ne ñii ñooy jàng aw ñii ñooy kuréel ñii ñooy rajas te ñuy mhm. benn njaboot guy wax kon bu sëñ bi eh, créé loo xam ne mhm. danaa xam ne ah kii mooy sëñ Mamour Kayre ñu duggante loolu rek jar nañu sant sëriñ waaw ndax ñoom may fàtte ñoom li waarul xam ni waaw muy mbaarum Daaru Xudus ma fa la ñu nekk ñoom sëñ Xaadim Gaye sëñ fa Ndiaye ak ñi ànd ak ñoom ñoom itam nañ ko defee woon daaw Euh, seen i seen seen i itte la wut mhm. jël seen i waa waajal seen lépp mhm. ak seen sonorisation mhm. fas yéene ñoom itam defee ko ni nga xam ne la ko sëñ bi digle te foofu sëñ mi li ci gën a yéeme mooy eh, ñoom lu bokk ak xasida dañuy yëkkati ndax daaw ñu ngi nekkoon ci barabu jullikaay it bi mooy ah. fi Baay Faal yi nekk eh, juróom benn fukk ak ñett ci ay ay jànkat jàng nañ fi eh, waaye liñ durus ci xasida agoon euh, na ci dix mille deux cent yu teg. Mhm. dama fukki junni waaw ak ñaari téeméer xase xam ne boo jëlee mooy bu dañ la naan durus nañ mooy bu cinq mille nangam. Mhm. durus nañ jës bu trois mille nangam. Mhm. noonu lañ ko durusee. <laughs> nga xam ne loolu bokkul ak jàng njàng bi nga xam moom lañ doon noonu jàng diwaan yi. loolu nag gis naa ne exemple la bu mataroy mooy mooy mooy mooy ku mën a yëkkati. mën a durus. kon ñoom ku ci newul ci micro bi. di yëkkati yaa ngi yor sa jukki di durus loolu itam day mel ni sàkkuwaale nañ ko mhm. ci ñi nga xamante ni ñooy ñëw ci ci loolu it dafa jaadu ci kuréel bi ndax kuréel boo xam ne mhm. danga toog di xaar mhm. te doon ñaar fukki nit ak nangam war nga ci xasida yi ñu teg pour durus nga jël ci xasida balaa sa tour di ñëw di nga loo xam ne eh, dañ ko xam loolu itam yaakaar naa ne bu ñu xëyee am na équipe bu ñu génnee ci supervision générale boo xam ne dana def tuuru barab yooyu yëpp jox leen ay jumtuwaay yoo xam ne dañuy saytul nañu lii lañ jàng lii lañ jàng lii lañ jàng ndax bilan bi ñuy wax mhm. euh, li tax ñu xam ko mooy ba njàng mi jàllee kenn ku ne joxaat nga ñu ay kayit yu tax ñu xam ne mhm. barab sàngam jàng nañ fa lii barab sàngam jàng nañ fa lii mhm. loolu itam yaakaar naa ne euh, ku seetlu gis nañ ne ren bi tàmbalee bis bi hésité wuñ ndax dañoo génnee bilan daaw bi jox ko comité pilotage bi ñu ne ñu kon sukkandiku leen ci lu daaw li xool ni ngeen di tërale ren bi loolu mm-hmm. la waañ bi def loolu la ñëpp def kon loolu itam yaakaar naa ñu ngi koy soññee mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci barab yi mm-hmm. da nga gis sax lañ la mi ñoo xam ne seen pas-pas àgg na ci ñun jotuñ leen contacter tey jii rek euh, ku ñuy wax euh, Cheikh kaala Dia ak Cheikh Kala Ndiaye la yaakaar naa nekk Ndindi woon na ma mhm. ne ma ñu den dindi lay nekk mhm. ñëwuñ ci jumaa ji waaye dañoo jàpp ne lii ci pénku ci péncub jumaa ji la bokk kon yor nañ fi ay kuréel mhm. dinañ fi durus bu ma xëyee danaa la wax ñaata kuréel lay jàng bu demee ba ñaan danaa la yónnee message ne la lii lañ fi jàng ci ay xasida am na solo eh, loolu waa Ngaabun loolu lañ ma wax eh, waa Janatu Mahwa loolu lañ ma wax ndax ñooñu da ngay jàpp ne excentré na waaye dañoo jàpp ne ci urum bi lañ waaw waa bi gën a exhaustif mooy nga bataaxal bii mhm. nga nekk ci pénc yi nekk ci Touba ni ko sëñ Xaadim waxee ndax mhm. fu mu nekk war na ko faa mën a dundale mhm. euh, ñoo ngi ñaan bu liy jàllee euh, boo ñu woowee ci 77 953 87 91 77 953 87 91 ñun dinañ mën a jokkoog yow su ko defee euh, ñu enregistré yi nga xam moom nga ñu yónnee. ñu boole ko ci bilan bi. ndax yaakaar naa foo ko nit dundale rek ci ndigal sëñ bi ci nga nekk. loolu ñoo ngi koy sàkku. waaw loolu di lu Cheikh Touré moo ñëwoon rek ci wàllu jumtuwaay yi kuréel bi indaale. Mhm. diggante téere yeeg tegukaay yeeg. Mhm. yenn jumtuwaay yi nga xamante ne dinañ ko dinañ ko ko soxlawoo. Mhm. nan nan nan nan ngeen ko nosee. sëñ Lamine lu am muy lu am solo ndax. Euh, téere yi moom luñ ci andi du doy. Euh, ñun fexe nañ ba am na barab yoo xam ne yóbbu nañ fa ay tegukaay mooy pupitre. yóbbu nañ fi ay moquette. yóbbu nañ fa euh, lépp loo xam ne jumtuwaay la bu ñuy jàng mooy ay. ay ay diiwaan mm-hmm. wala ay xasida yoo xam ne mm-hmm. dajalewuñ ko ci ab diiwaan mm-hmm. euh, ngir ñafa nekk waaye nag dañoo gis ne loolu du doy ndax barab yi nii ma ko waxee ni mu yaatoon yi euh, kuréel yi képp kuñ ci contacté yi dañ lay wax ne booy ñëw hmm. sa dol yi nga xam moom nga yor muy dol yi ngay jàngee yow nga indaale ko hmm. day tax boo jàngee ba noppi yóbbaale sa dol beneen sa morom bu ñëwaatee indi ay dolam jàng ci mu gën a yombal mu gën a yombal liggéey mu gën yombal liggéey ak parfum yi gis naa ñoo xamante ni ay saako parfum la ñuy indi waaw loolu loolu loolu it mel na ni am solo ci njàng am solo la ndax nag hmm. euh, tayba raihatin isla taxlu majalisa sikri hisaam ma tajloo anil malaikati bistimaahi wa muminil jinni halal ijmaahi mhm. sëriñ bi moo ko wax mhm. mooy fépp fu ñuy tudde yàlla mhm. bëgg nañu nag xët gu neex goo xam ne dafay gilli ndax malaaka yi ak jinni yi gëm dañ dañ dañ koy fekkee te xët gu neex googu day tax ñu gën a sawar xiiwal yi day gën a bari loolu ñu ngi koy sàkku ñëpp loolu mooy li suñu xaadim wax kenn ku ne am na foo mën a jàpp dëgg la man gis naa <laughs> waajoo xam dina ko am <laughs> loolu daal bu xasee topp moom. moom day rek dëgg la loolu yaakaar naa ci liggéey bi la. waaw loolu loolu naa ci jumtuwaay yi la ndax mm. keroog ñi nga xamante ni sëñ Mouhamadou Xabaan mu Cheikh Mouhamadou Fadel ñoom la yebal fii ci émission bi bokk na ci li ñu soññee mooy kuy ñëw nga bañ jumaa ji am na ay téere mm. kon foofu ñoom fàggu nañ seen i kaamil fàggu nañ seen i jukki loolu lépp kon day bokk ci limu xas di takku yi nga xamante ni bokki taalib yi dinañ ko indi teg ko fa te gis nañ ne moom xas di moom lu ñu fa teg incha allah balaa balaa balaa jant soo gars yi dinañ dinañ ci durus bu baax baax a baax baax a baax sëñ day mel ni waxtu waa ngi dem waaye lan mooy rek kàdduy soññe yi ngay jëmee ci waañ waañu ndax waañu ay góor a ngi ci waaye nag soxna yi day mel ni kenn kenn kenn ëpp leen ci kon mel nañ digg nañ comité de pilotage bi soññee na teel waaye na sell doon loo xamante ni wax dëgg yàlla ku ñu ko taaj di nga xam ne lii ay bernde la yoo xamante ni yu ñu wuy seelu ci sëñ bi ak itam nag xëy na daaw gis naa ni euh, tubaarkàlla euh, sa waañ sànq rek ñu ngi wane reportage bi mu mbanay takku na waaye itam teel naa ñëw te day mel ni euh, koñ ba moom ña fa dëkk gis naa ni moom góor ñi bàyyi bàyyiwuñ ko jigéen ñi moom waaw ndax day mel ni ñëpp ñoo àndandoo xam ne liggéey suñu tubaab ñu jàpp ji loolu nag yaakaar naa yeneen waañ yi yi tasaaroo bu ñu ko defee noonu itam incha allah loolu rek lañ ci am. waaw jërëjëf. Mhm. ci yaatal gi su ko defee yaatal gi ñoom mhm. noonu mhm. nekk ca gox ba. Ah, bi. ndax loolu moo waral gox bu ne bu fa jëlee benn waañ rek. waa gox bépp mën nañ dañuy jàpp ne ñoom la jël ngir ñu ànd ñoom liggéey bi loolu moo waral boo ñëwoon ci Taysir ngeen wax léegi dafa teew daa daaw ci ay daayira kenn xamul nu mu nu mu nu mu waaye soññe bi fi muy jëm rek mooy li nga wax euh, euh, doon tey góor ak jigéen ñoo koy seq luñ ci may luñ ci mënta moytandiku ci ak jaxasoo ñoo ngay fàttali mbooleem waañ yi bokk na ci xew yi gën a mën a gàllankoor liggéey yi te te te seytaane di ci laxasu baax a baax mooy suñu jëmmi appareil yi ñu yor euh, da gis doomu aadama nit dem ci barab ba jóge fa sàkku tuyaa ba tax ko jóg mu mën faa ñëw ba jóge fa te du fa jële benn yiw dafay nekk di photo di kamera di arrêté ba ba fàtte sax li ko taxoon jóg kon ñoo ngi fàttali leen ku nekk ci wàññi sooy ñëw wax nañ ko keroog suñu réunion bi ñu doon def suñu waa daayira na nga njëkk a jàpp ba sell boo dee soxna boo dee boo dee bu fekkee ne euh, jamono ji waxe yow yor nga ket da nga jàpp ba sell ku mën doon ak ci buur ñi am pas-pas ak yéene liggéeyal sëñ Tuubaa fa ko jëm soo ñëwee it nga yem fañ la yemloo am fii ak lu soxna war a def ndax mboolem wàññi yi ko boo demee ci wàññi yi da ngay fekk nañ koo seddale góor ñi am na lu ñu a def ay xeeti rooteek ay yëkk wëlbati mbana yi ndax dafay gis ñaar yooyu nañ koy def te ku góor ko defal jigéen mu noppi nga sori foofa soxna yi ñoo mën a àggale liggéey bokk na ci liñ gën a soññeet mooy teel gi ni nga ko waxee ni nga ko ni nga ko waxee loolu te loolu dara ñu ko may lu teel a jóg maa ngi koy fàttaliku rek maanaam passeport bi ci soxna yi amee moom ku dimu ci waa ñi mënoo ko xam man daaw ay trois bi ma jógee ci waañ wi di dem sama daara maa ngi daje ay jigéen yoo xam ñi ngi daw ay di di jàpp si di maanaam jàpp si mbana dangay dem ut sa goo xam ne ñëw takk ko ci mbana ni gii maa ko jàpp bu subaa nga wut ñoo ko bokkal fas ñu ciy liggéey Sëñ Tuubaa tey jii am na xale boo xam ne yaakaar naa ne mën naa wax Sëñ Tuubaa sax amagul fukki at daa yëkkati fanweer jox na ma ko defal ci ak ak ak lii yeneen yoo xam ne euh, mel ne ni yëg-yëg ci jëmmi sëriñ bi mënuñu ko yëg sax waaye am na lu mu ci yëgal loolu nag ci ci ci ndaw ñeeg ci jigéen ñeeg ci ñëpp yëg nañ ko ci ci bis bii mu mu woote ndax ni ñëpp waxee sëñ xam jamono la dafa njëkk woote woon daaw bisu alxuraan mu jàll mu woote bisu xasida mu jàll mu woote bisub sikru leer yi ren nag mu ñëw fawaat yooyu yëpp boolewaat ko ci muy benn bis nga xam ne doo mën a wax ne bisu xasida la woote wala bisu alxuraan woote bisu waaye bisu bisu xasida moom lañ gis ne moom lay woote ndax xasida gaa yi dañ koy naan xaaf gi mooy alxuraan gi juróom benn fukki saat di di di saare alxuraan xaaf yàgg ak del gi boo ko booy mooy di saare alxuraan yi saat gi di juróom benn fukki isibil alxuraan yi xam ne lépp day dugaat ci biir wala sikro akbar ni ko suñ moo koy wax te te war a sikkuraay akbar jooju ji ji bi sëriñ bi wax euh, dane fa kullu man sa al fa la jawaab xam lu fa laa tujaadilu ahla kitaab te war a sikkuraay akbar jooju la ci jublu kon ñu ngi soñee bu baax ci wàllu waañ wi ci pas-pas ak ci pëstéef ak ak ak ak ak sellal ci gën a ñor te it ñam bi lu mu gën a mën a am ndox ndax bokk na soxna soxna yi liñ gën a ragal ci togg mooy am ndox te it mel na ni buñ ko ci bàyyiwut xel Euh, nit ngir mu jëfandikoo ngir mu yomb ci moom mën naa indi jafe-jafe te ku sañoon boo taajalee nit aw ñam dana ko xéwlu ba mu jeex tàkk ba dara du jees loolu nag ak neex moo koy waral euh, te te te te baax aw ñam yi dana neex lool te du te te du baax xam nga ni mën a waxee mooy euh, am qualité. nit nekk ñam gu gën ci moom loolu nag am na yooyu utilisé ci sa togg ba boo ko defee ñam yi lu ko nit bu ko lekkee dana gaaw a res tey dina gën ci moom kon ñoo ngi sonne baax ñu gën a sonne ci ñam yi. ngir jëm suñu Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf sëñ Cheikh ñu a baax a a euh, xam naa ni euh, ko. waxee jëwriñ yi nga xam ne ñoo yor waañ wi tey bii ñu ñëwee euh, fi sëñ Yuus doon doon doon doon séddale yi nga xam ne moo ci jëm koo ci gis itte jëm ciy def laxasaay lay indaale teg oto yi bu dee lu ñuy sëf moo koy sëf boo koo ci xool li nga gis ni kii itteem moom yegg nañu fas na yéene teela àgg ba jublu ci li nga xam ne moom la def loolu nag ñu xam ne ki ñu koy defal gis na ko lépp muy Seexul Xadim Sëñ Xadim xanaa yenn kaddu ngay tëjee ci recommandation générale yi nga xam ne dina baax ci mbooloo mu mel noonu ñuy daje te xam ne nag bis bi eh, ci nawet la ne waaye eh, soññeek Baay Faal yi moom yóbbaale na murit yëpp ne nañ bu ñu tàmbali woon sikkar it asamaan si ñëw dañuy jàpp ne dañoo da daa sikkar si rek waaye waaye duñu yàqal suñu liggéey <laughs> mel ni nag loolu matuwaay bu am solo la boo xam ne mu jël rawatina ci concentration humaine bu mel noonu ak itam nag ci période bi nga xamante ci lañ ko defee. waaw euh, jërëjëf euh, sëñ Mouhamadou Lamine. Mhm. Euh, di sant bu baax a baax si waxtaan wi. Mhm. xëy na rek yenn recommandation yi may wax rek mooy benn bi mooy ku nekk jàpp ne. Mhm. yow bu fekkee bis bi dafa war a dox. yow yaa ko war a doxal. waaw ku nekk jàpp ne bu doon yow rek yaa fi yaa bis dafa war a dox. Mhm. yow rek yaa ko war a doxal. que mhm. jàpp te bu fekkee dafa nar yàqu tamit. yow mhm. mën nga mën nga ko yow rek rek mën nga ko yàq. xam ne ku nekk day day day jàpp ne sa mbir bopp nga koy def. Euh, benn bi tamit mooy euh, bu fekkee da nga ñëw xëy na du yomb. ci bunt yi. nga fexe bu fekkee da nga euh, gisee sécurité. nga fexe ba communiquer ak ñoom. la nga xam ne nga bëgg nga wax ko. defe naa amul benn koo xam ne dafay taxaw ci sécurité bi. Mhm. nga wax ko loo xam ne dafay defar liggéey bi bare mu mu lay gàntu. loolu loolu loolu amul. Mhm. su ko defee ñuy ñuy communiquer ba pare di ànd ak ànd ak dal. Mhm. dal gi moo si ëpp solo. bañ a gaaw a meer ndax mën nga ñëw. gisee koo xam ne fukki nit ñu ngi ñu ngi ñu ngi wax ak moom. am fukki nit yu koy xaar. kooku da ngay sóoraale ne pression boobu rek euh, doy na te ña nga xam ne ñooy ñooy defar nekk ci sécurité bi tamit ñoom. ku nekk da ngay ja waroon nga nekk sécurité yow. Mhm. sécurité boobu beneen bi tamit mooy. Mhm. Euh, ndaje boo dem. gina mhm. am ñoo xam ne lu baax mooy leen tax a jóg. waaye gina am ñoo xam ne tamit safaan moo leen jóg. donc képp kuy ñëw tamit ngeen di bàyyi seen seen i seen i euh, bàyyi xel seen portable yi. di bàyyi lépp loo xam ne jàpp nga ne boo ko ñàkkee rek. mu am lu mu gàññ si yow nga si nga si nga si bàyyi xel. li may mujjee rek mooy cet gi. cet moom mooy mooy mooy mooy lépp. képp koo xam ne yore nga muusu ndox. wala sachet. wala lu mu mën ci doom. Mhm. fexeel ba booy jugee ci euh, xew-xew bi. Mhm. bu mu fa des. Mhm. Euh, di ziar ñëpp euh, di di sant ñëpp di ñaar ñu yàgg ko fekkee yàgg ko tal. di ko ànd ak sëñ ak ñëpp ñoo xam ñoom lañ ko seqal ak Serigne Touba. jërëjëf ñu koy sant bu baax sëñ Khadim Thiam mu ñëw teewal fi commission sécurité bi nga xamante ni nag wax dëgg yàlla ren ak ko am na ci bu am solo ndax mbooleem bànqaas ak kuréel yi koy séq ci yoonu murit li sëñ Assane waxoon rek wasamlaj maha ak ci sëñ Touba def. ni mu feeñ ci xaside yi feeñ ci waañ wi noonu la feeñ ci sécurité yi beneen secteur boo xam ne sax gën na cee feeñ muy wàllu communication bi nga xam ne yaakaar naa tey fu nekk ñu ngi fay am ñoo xam ne incha allah Eh, lay xew France lay xew Angleterre lay xew Italie lay xew feneen lépp ay bokk taali bi ànd fas yéene wane ne ndigalu suñ Tuubaa yi eh, murid yi fu ñu mën a ne ci biir réew mi ak bitim réew séq nañ ko kon loolu di lu di lu di lu am solo Sëñ Asan yan mooy kàddu yi ngay yi ngay ak xëy na eh, dénkaane yi nga xam ne mooy jëm rek ci ñi nga xam ne ñoo séq wàllu kuréel yi. jërëjëf sëñ Lamine yaakaar dénkaan moom day dem ci li bokk yi waxal ñoom ñëpp. Mhm. mooy sellal gi moom dafa war fépp. Mhm. ndax kiy durus it na ko durus durus gu sell mm-hmm. am ci pas-pas pas-pasu jëfe ndigal li mm-hmm. pas-pasu sellal ko mm-hmm. kay jàng xasida it na jàng rek te yàlla tax bu mu jàng ngir nit ñi bu mu jàng ngir fetesu na jàng rek te xam ne jàmm yàlla lay def kon xam nga sellal bi war na fépp euh, ka nekk feneen noonu euh, leneen li nga xam ne euh, moom laa bëgg fàttali Sëñ Lamine te bàyyi nañ ci xel léegi-léeg nga gis itam kuréel boo xam ne bokkul ak ñi contacté woon mu ñëw am pas-pasu jàng. Mhm. bu ñëwee ci barab. Mhm. na teey rek te laajte ka nga xam ne mooy jëwriñ ji. Ah léegi-léegi ñu sóoraale diggante boo xam ne mhm. dañ naan ab kuréel bu ñëwoon te war a jàng kuréel bii day war nañ koo xejal fii war nañ ko nàngam bu boobaa bu bu àndeek dal rek mooy la siñ siñ xaarim siñ xaarim wax kon barab boo dem rek bu àndeek dal ndax ñun ñëpp dañoo bëgg mbir mi dox boo boobaa boo laajtee jëwriñ ji danañ coordonné ba léeg-léeg ñu ne ko kon nañ ko indi barab sàngam mhm. ndax gis nañ ne foofu mën nañ faa insérer kuréel loolu itam bokk na ci li nga xam ne bàyyi nañ ci xel eh, ndax nag eh, réew mi yaatu na mhm. fii ba Ziguinchor am na ay kuréel yu fa jógee mhm. terewul am na ñoo xam ne mën nañ laa échappé wala doo leen xam te ñu am seen pas-pasu jóge ci ab barab boo xam ne dañuy dem Touba ngir jëfe njëgal yi ñooñu buñ sañoon liggéey bi ñu ànd kook ñoom kon barab yi nga xam ne moom la ñuy jàngee ginnaaw teg nañ fa ay jëwriñ yoo xam ne loolu rek lañuy la ñuy bàyyi xel ku adressé wu ci ñoom bu seen barab amee xat-xatu doo fa xej itam ñoom bu ñu woowee dañu ànd ak ñoom ba orienté leen foo xam bu ñu demee foofu nañ leen boole ci programme bi incha allah dëgg la loolu am solo la loolu loolu suñu asan ndax tey boo xoolee waa Ndindi ni ñu def mm-hmm. Mm-hmm. waa Ngiraaneen daaw noonu lañ def mm-hmm. waa Saam noonu lañ def ñeneen noonu lañ def xam ne pénc ñu yor ay pénc la yoo xamante ni pénc sëñ Tuubaa la ña fa nekk di ay kilifa eh, sos fa juma def fa kër sëñ Tuubaa def ko muy barab boo xamante ni sëñ Tuubaa lañ ko moomale kon barab bu mel noonu bu jumaa ji feese ba kenn xaju fa hmm. mu dund itam wàññiwul dara mooy li suñu xaarim wax rek hmm. <laughs> dina am ñoo xamante ne tey fa ñu gën a jege nekk fa mooy doon nooflaay ci ñoom hmm. mooy tax itam li ñu sàkku ci mi mën koo gën a am sëñ Mourtala yan uh, recommandation nag yuy mujj ci comité de de pilotage bi ndax secteur yu bëri tudd nañ leen njàngum alxuraan maa ngi fi durus baa ngi fi waañ waa ngi fi sécurité baa ngi fi waa collation ñuy joxe yu sedd yeeg yu ni mel ñoom itam di di di mbooloo mu mu mu takku ñi yëngu ci wàllu sonorisation wàllu bâche yi kon day mel nii ay commission yu bëree bëri bëri lañu am yoo xam ne ku ci ne fi mu ne nii nag euh, daanaka euh, daas nga say ngànnaay incha allah fas yéene nag jëm ci xare bi. waaw jërëjëf xanaa kay sama kàddu yu mujj rek mooy kàddu cant. Mm-hmm. ndax waxtu bi nga mm-hmm. jumaa mm-hmm. di seen liggéey bi. suñu wax ne dafa un dernier tour d' inspection. suñu Yuusu ma moom tamit. Euh, waaye li nga xam ne mooy li am solo mooy li ñuy wax comité de pilotage comité de pilotage ñu ñuy gis ñu wax ci turu comité de pilotage waaye nañ bàyyi ne suñu gannaaw la tax ñu mën a liggéey suñu gannaaw la ndax bu ndigal rotee rek ñi nga xam ne ko seq sañ am sax sañ Yuusu bi ñu ko tënkee ba ñëwee mboolem ñun lu ñuy def ci comité de pilotage day mel ne orientation yi foofu lay bàyyi ko di ñëw muy lu am solo lool euh, ñu si sant bu baax nag euh, sëñ Youssou lu tax ma ne ñu ko si sant moom esprit d'ouverture am ak bëgg àndandoog ñëpp ci liggéey bi day tax comité de pilotage waxtu wu nekk da koy enrichir ku ñu gis koo xam ne ko ci war a mën a rek la daanaka lay woote diw mee am na solo lool su fa nekkoon loolu dana si baax nga xam ne kon loolu dem na ba mel ne lu fédéré ñëpp te sëñ Xaadim xol yi ànd di bokk ni ñuy gisee di bokk ni ñuy defee di dem lu ko ëpp solo dafa amul ci liggéey bi te dañuy gis ne occasion yii daje yu mag yii sëñ Muntaxa di ko santaane occasion suñu xol di ànd ñu boole liggéey tax kon euh, faw ak cant am ndax bi ñu dajee si jataay bi sëñ am sa dane sëñ Moustapha sëñ Mouhamad moom la jiital ci wàll yooyu noo ko ànd ak sëñ Youssou ñoom bi ñu ñëwee sëñ Moussa ma Mouhamadou ne ma jiital na seen Cheikh ci walla liggéey bi sëñ Moussa ne ma jiital na ma ci waaye boobu ba tey jii ñoom ñoo nekk suñu gannaaw lu ñuy def moom nga xam lu ñu def ba pare dañ ñu ko dellu si waat moo tax kon mooy profité waat di wax mboolem commission yi ne dama war a def bilan diggante bi xat na ndax suñ si jógee rek Muharram day daal di tabbi liggéey Muharram bi tàmbale waaye commission bu nekk dañuy liggéey defal bilan mm-hmm. bilan bi na egsi bilan bi noo ko mën a bindee mm-hmm. soo ko mënee bindee ci français baax na ci wolofal baax na ci arab baax na ndax bilan mooy tax beneen yoon suñ koy defaat mm-hmm. mën a xam nan lañ ko defee ak fa ñu jaar ren jii de bi ñu tàmbalee dañ wax nan lañ defoon daaw ñu kenn ku nekk génne bilan mboolem secteur yi nga xam ne déposé nañ bilan rek secteur yooyu moom sëñ wax ne dafa gaaw dafa rafet kon noo ngi ñaan secteur yëpp déposé bilan soo seetee waaye ñuy jëm Papa Sane seen bilan tax ñu mën ko déposé ba wax la njàng ci xaside mooy dañ ko saytu woon ba ba muy àgg kon noo ñëpp tamit ñu jaar foofu rek suñu paree déposé bilan ñu mën a def évaluation kon noo ngi sant bu baax euh, ñu ngi doon liggéeyloo te xam ne suñu yitte jëpp mooy sàkk ngërëmu Cheikhul Khadim autorité état yi nga xam ne tamit ñu ngi si jàppale ñoom ñëpp ku ñu jàppale ba ñu yëwénal suñu sàkku ngërëmul sëñ Touba dañ laa amee cant kon ñun ñëpp tamit ñu ngi sant bu baax a baax di leen gërëm sëñ Mouhamadou du Seye ci comité de bi jërëjëf sëriñ Pape Assane Diouf ci wàllu njàngum xasida ak euh, ñi nga xamante ni ñoom la àndal nga xam ne yóbbaale na durus bi euh, sëriñ Cheikh Touré ci wàllu bernde yi ak waañ wi bernde yi nag waañ waa ngi séddale baa ngi ci euh, naan yu sedd yaa ngi ci yu tàng yëpp yoo xamante ne yuy jàpp ndalal dongo yi seenuk nekk ci bis bi Euh, ci la bokk ak suñu xaadim di ko sant bu baax mu teewal fi waa commission bu am solo nag muy sécurité te day mel ni sécurité seen liggéey bu doon fukk daanaka juróom-benn yi wala juróom-ñett yi ci ñun ñi ñuy saytu la féete mooy jëfe seen ndigal wattandiku mboolem li ñuy tere kon gis ngeen fàttali yi fàttali ñi fa bëgg indi ay xale yoo xamante ni mën nañ faa am jafe-jafe ñu fu ñu xam ne euh, waxtu wi laajul loolu ñi nga xamante ni itam amuñu yenn kàttan gi ñu xam ne laajul loolu jigéen ñi fañ leen rëddal ñu war faa yem bañ ko weesu ñii indi xéewal yi fi ñu leen wax ne fii ngeen koy teg ñu bañ a réeroog ñi nga xam ne ñoo ko yor kenn ku ci ne barab booy dugg ña yor bunt ya di ko saytu fu ñu la jaarale nga jaar fa ñi ànd ak ay kilifa noonu ñi yor ay oto ñu xam ne am na fu ñu bëgg ñu jaar fa ak nu ñu bëgg ñu def ko ku ci nekk itam bàyyi xel ceetu barab bi bañ def loo jël sànni wala jëw ilaa nga jàpp ne ndaje la moo xamante ni euh, kenn ku ne xam ne Euh, li ñu Cheikh Mouhamadou Mountakha di defloo dara gënu koo màgg mooy jàng alxuraanul karim jàng xasida sëñ Tuubaa turu suñu borom boole ci ay bernde loolu moom day mel ni mbooleem luy yiw rek daje ci biir loolu kon day mel ni yiw yëpp la ñu bëggal mu ñu taasu ci kenn ku ci nekk am foo ci mën a taxaw fuñ la féetale bu doon raxas bool yi la bu doon bu doon seetal barab yi la bu doon séddale la nga jàpp ne yow mooy sag matt gi nga xam ni ci ngay amee ngërëmal sëñ tubaa kenn ku ne bu dajalee matam muy aw say woo xamante ni fu ñu ko ne sirip bu fa buntu waree ubbi ko ubbi ko fa di siyaare nag bu baax ñi nga xamante ni ñi ngi àndoon ak ñun ci wàllu sonorisation barab bu ci nekk itam gis nga ay mbooloo ñoo jóg indi seen jumtuwaay seen matériel fas ci yéen a liggéeyal sëñ tubaa ñii def ko ci wàllu glace gi ñii def ko ci wàllu ndox ñii def ko ci seen jumtuwaay ndax jataay bii yàlla suñu borom dogal na Euh, ñi koy seetaan ci ay plateforme ëpp na téeméer te ñi ko séq ñëpp ay bokki taalibe lañu ak ñu bëgg lu baax indi seeni jumtuwaay ak seen i jëmm ak seen alal def ci xam ne euh, woote sëñ Tuubaa war nañu koo tasaare ba mu yaatu ba daj àddina sépp kon nag ñu xam ne ñu ngi noonu ci waajtaay wi war a jëm nag ci bis bi ñaan suñu boroom ci barkeb Cheikhul Khadim mu may ñu dugg ci ak jàmm mu may ñu kàttan may ñu sellal ko may ñu melokaan wuy tax li Cheikh mu Mountakha bëgg ba di ko sàkku ñu ñu ñu ñu mel ni ba li nga xam ne moom la ci bëgg moom suñu borom defal ko ko suñu aajo fajoo ci àddina ak àllaaxira di siyaari ñëpp ñi nga xamante ni ñooñu doon bàyyi xel di nag mboolem ñi nga xamante ni boobaak léegi ñu ngi ci yëngu ak ñi nga xamante ni ñu ngi jóge ci sori sa jëm ci suñu borom may ñëpp ñu agsi ak jàmm defee ko ni ko sëriñ bi bëggee sàkku ci ngërëm mu am ko dellu nag di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéey Sëriñ mu matale ko te ñu ànd ko ak moom di leen sant di leen gërëm di leen dig daje nag incha allah suba ci plateforme yi nga xamante ne moom la ñuy wax incha allah lañ ko fas yéene euh, bu njàng mi dooree ci fajar gi ñu fas yéene ànd kook yéen ci mbooleem barabu xoolukaay yi nga xam ne yéen a ngi koy xool muy ci tele yi di ci réseaux sociaux yi di ci lépp incha allah ba keroog sëñ bi di ñaan di yeewi mbooloo mi di leen sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.